dal leen ak jàmm seen bii di Thiowli Buzz kii di président Ousmane Sonko ci caravane de la paix bi mu doon amal ginnaaw bam mu ci Vélingara plus précisément ci Koupentoum kii di Antoine Félix Diome joxoon na ndigal waa police nationale ñu dal di koy jëlee ci otom bu mu nekkoon par la force daal di koy jëlee foofee par la force daal di koy indi ci cité kër góor gi daal di koy dugal ci këram par la force ba noppi daal di bunkariser foofee. ginnaaw le 28 mai di bés bi nga xam ne moom la kii di Antoine Félix Diome joxe woon digal ngir ñu daal di jàpp kii di président Ousmane Sonko daal di koy yóbbu par la force cité kër góor gi. Sénégal yu bëri xamuñu nekk nu kii di président Ousmane Sonko ak naka lay dundeek njabootam foofee si loolee. buñ sukkandikoo ci avocat bii di maître Clédor li kookee ne jéem na koo gis lu tolloog juróom-ñeenti yoon waaye li ni dañ ko koo ngàntal buñ sukkandikoo ci kii di Guy Marius Sagna tamit jéem na koo gis waaye dañ ko koo ngàntal ay leader yu bëri yu bokk ci yeewu askan yi jéemoon nañ koo gis waaye dañ leen koo ngàntal la waaye tamit waa mouvement bii di F24 ginnaaw ba kii di Alioune Sané demee foofee bu koo gis dañ ko see jàppoon sax kaso si ginnaaw lañ ko daal di bàyyi tiital na patriote yu bëri ba ñuy laajte naka la kii di président Ousmane Sonko di dundee biir cité kër góor gi ci loolee nag tontu bi mooy que ne kii di président Ousmane Sonko ginnaaw bañ ko yóbbuwaatee këram le 28 mai jot naa gisee que kii di Pierre Atepa te kookee nekk nga xam ne ne moom moo ko financé woon ci élection présidentielle 2019 ya waaye tamit moom moo ko jàppale woon ci élection législative yi ak locale yi ñu génn ci réew mi di Sénégal ginnaaw loolee tamit ci nekkinu famille kii di président Ousmane Sonko kii di chef protocole am bii di Djibril Gueye Ndiaye kookee moom moo leen di andi lu ñuy lekk ak lu ñuy naan kenn si ñoom bu amee tolof tolof wala lu koy métti kii di Djibril Gueye Ndiaye la koy wax ngir kookee daal di koy wax autorité yu nekk Sénégal ngir ñu daal di saafara li ni mel donc kii di président Ousmane Sonko dañ ko séquestré loolu am na waaye nag moo ngi dund bu baax mook famem biir te kër góor gi